xibaari biti réew yi xibaar bi réew yi nag ñu daal di koy dooree ak dëkk bii di Soudan ay jàppante am fa ca diggante force de sécurité ak l'armée ba gannaaw bu yàgg ba léegi armée ba newoon tekk waaye nag am mbooloo mu daje ci ay manifestation yu yaatu yuñ doon amal ca Khartoum bu yàgg ba léegi nag ñuy sàkku président ba di Omar El Bashir ngir mu dem waaye tëréewul way ñaxtu yo amal seen yëngatu ca noonee ca lañu nekkee ca armée ba daal di ne tasaare am na lu toll juróom-ñaari nit yu ca ñàkk seeni bakkan bu sukkandikoo ci benn seede mi frontière mu nekk loo xam ne nag jaaxal na ñi nga xam ne ñooy yeewoo ci réew ma ñu dem ci dëkk bii di Rwanda ñoom nag ñuy fàttaliku ñaar fukk ak juróomeelu anniversaire boo maate ba fa amoon jiitu réew ma di Paul Kagame daal di tàmbali xew mi ngir ñaanal ñu ñu ñu ñàkk ànd ci ak njabootam ak itam ku ñuy wax Idriss bi ak Denis Sassou Nguesso mu nekk nag xew boo xam ne bu daloon la waaye xarkanam yi ñu mën caa nemmeeku ak jaaxle ñu dem ba Mauritanie du Ould du nekk ca kuje ga léegi leer na mbër lay doon ci jongante njiitu réew yi ñu fa dëdmal moom mi jiite union des forces des progrès mu nekk nag ay kàddu yoo xam ne mi ngi ko yëkkatee ci benn meeting waaye nag yamu ca daal di jébaane nguuru ko Abdou Assis moo fa nekk mu jàpp ne la mu waxante woon ak askan wa du dara lu mu ca def ñu jeexale ko ak réew mi di Côte d'Ivoire jamono ji nag njiitu réew ma di Alassane Ouattara ndax bi yóotuwaat ñetteelu mandat gannaaw forum bi ñu doon amal ñu tuddee ko mooy Ibrahim moom milliardaire bi gannaaw waxtaan bu mu amal ak Alassane Ouattara ci la njiitu réew ma yëkkatee ay kàddu daal di koy jëmale ci yéene bu mu am ca réew ma waaye ci ay kàddoom bu moytuwulee dina laaj ñetteelu mandat jërë ngeen jëf mbokk yi di la ngeen indiloon ci xibaar yi biti réew yi